lii moom la euh, soxna Ramatulaay Fall indi en tant que doomu dëkk bi te it man en tant autorité bu ko indee teg ko sama loxo ñu war koo jox ASC yi man damay bëgg a waxaat aussi ne du guléet parce que njëkkoon na fi indi saabu gel ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni day participer ci xeex feebar bi. dimbal bi toll na ni ci 500 mask pour. jàpp ci euh, mbir mi fas yéene aussi jox ko population Ndande ak 10 euh, thermo thermoflash parce que aussi thermoflash bi baax na nit ñi euh, léeg-léeg ñun ñu mën a xam koo xam ne ni mën nga yor jàngoro ji te nit ñi xamuñu ko ASC yi su fekkee ñoom ci seen bopp yore nañu jumtukaay yu mel noonu war nañoo mën a xool ci seen caravane yi nga xam ne ni moom lañuy def testé nit ñi loo xam ne liggéeyu kër docteur la mais ñoom ci seen bopp en amont war nañ ko mën a def ak thermoflash yi. tey jii Sénégal bés bu nekk ñu jox nu plus de cent cas ci feebar bi donc nu xam ni lii liñ ci yaakaaroon am na leneen lu des li nu koy gën a mën a moytul mooy nu suivre li nga xam ni moom la nu ministère de la santé wax. looloo tax tey jii ah man ak euh, sama freer ak sama sœur yi nga xam ni no bokk association bi di si yëngatu pour suñu gox gi fii di Ndande ñu ne ah ñun jot na ñu seeti jeunes yi euh, maanaam sax am na ñu nu saisiroon si fan yi passé ñu seeti leen comme ñoom ñi nga xam ni noo gën a féete ndaw euh, tey jii xam ne ni nawetaan dañ ko aj te mu nekk activité bi nga xam ne moo gën a mag si jeune si vacances yi ñu ne neen dem seeti jeune yooyu jébbal leen 500 masques ak 10 thermoflash pour que ñoom nu mun a duggaat si biir askan bi gën a sensibiliser waat nit ñi pour que nit ñi di continuer di sol masque si jotaay yu nekk gën a sensibiliser nit ñi pour que nu gën nu aaral sunu waajur yi ak mag ñi nga xam ni ñoom la bi sonal. amul bu ëpp valeur ndaan affaire tourisme tey nu liggéey loolu ingénieurs yi ñëw nañu xool nañu suuf nañu bi ñu partagé c'est pas un marché de 10 millions 20 millions pour defaraat lu mel semaine prochaine la culture fi parce que maquette bi buñ ko defee dañ koy jël ministère de la culture Les bu mag ko teg fii ku ku rombati ndànd ni ndànd ak ministère bi ngi siy ak ni noo loolu ñun daal dañu bëgg si kanam bu bees ndànd si environnement bu bees di ñaan waa it projet bii nu commencé bu